bëgg damaa bëgg père Moustapha Gueye waaw mu doon loo xamante ni daal euh, Modou Lo moo ñu fi woo roi des arènes kii Ndéné lañ koy wax euh, sama waa ji borom suñu gaal 24 ci loo nekk moom laay waaj a jël mais suñu waa ji nee na ma moom daa bàyyi bu sedd rek. non pourtant man a yow làmb du ko daax. Hmm. ndax dëgg neexul yow doo ragal tamit du ma ragal. kon yaakaar naa ne cinquante cinquante lay doon. coolee bari rek waaye dañuy daje. tey ñu ñëw fii Modou Lo woo ñu fi lan nga njort ni moo moo waral woote bi. waaw woote bi nag li ma naan sëb la la ko bënd nga ca biir waaw mu doon benn maanaam maanaam benn woote boo xamante ni kumpa la daal maanaam comme que kilifa yi ñu ngi yegg si père Bécaye ngi noonu te yaakaar naa ne moom maanaam moom place am ma nga fa mm-hmm. waaw. Modou Lo nag lekk maanaam li nga xam moom mooy avance digganteem ak Ama Balde bi mu fi nekkee roi des arènes nag léegi yaakaar naa ne génnagul comme que nag c'est la première fois mu génn man de li ma njort ne loolu lay wax combat ak Ama Balde relance maanaam ralentir bi mu am lenteur bi mu am nii njort naa ne loolu moo tax muy maanaam àddu ci maanaam euh, naka la naka la maanaam di waajee làmb jooju pour man ak moom ak promoteur bi fan lañ toll digganteem ak ay supporteurs am depuis bi nga xamante nii jël na roi des arènes ba tey kenn xamut ci lu mu nekk. waaw deux points yooyu daal xam naa ne moom lay leeral incha allah. yow na sa jàmm kenn du yow. Ndeene la suñu confrère la waa kii moom mooy la Lyon keroog gis naa liggéey bu rafet bi nga xamante ne liggéey nga ko mbuur euh, ma lay jaajëfalaat bu baax a baax lu waral teewaay bi. waaw tey dañuy doomu mbuur ki xew la nekk doomu mbuur muy Lynn Nicolas di Serigne Fallou ah ñun tamit ñu yaakaar sëñ Fallou mu doon suñu Serigne rawatina muy liggéey ak ki nga xam ne nekk suñu ndijaay nekk mag ci li nga xam ni tarkaala macha allah si métier mi ah, si rajo yu mbuur yi képp ku koy déglu ku nekk ah, dama naan ah, tous les lundis et vendredi si XFM bu mbuur nga xam ne ndaanaan Ba Seri Filemène Ndour Baye Moustapha Mami Ndeela comme ni ma ko waxee mu doon daanaan doon coordinateur Ligne Nicolas nekk koo xam ne ñun avant lii nii nii ñun dañoo bokkoon staff Ligne Nicolas ba tey sax ñu ngi si ndax nee naa journée ba dañuy wàcc sur le terrain jëf nañ ko daan jafee res bi buñ demee ba cëppaandaw ga ñu doog a wàcc doog a jël micro bi ndax ñun ku ñu xam-xam ñoo staff Ligne Nicolas kon bu ñu xewlee dañuy jógee ba Mbour daal di ñëw fekke si li nga xam mooy conférence de presse ki nga xam ko jàpp waaw comme li ñu wax rek comme que CNG bi bari ci démb maa ngi invité sama plateau Mbour TV ki nga xam mooy premier vice président chargé de la lutte avec frappe mu ne xam naa ne fii ba janvier mooy gën wóor pour ñu officialiser ni lamb normalement mën naa am mais instant yi lamb mënagul a am kon mënagoo xam ban date lay am mais dañoo bëgg a wone def conférence de presse yi pour wone ni combat bi taxaw na pour nit ñi gën see bàyyi xel moo waral ñu def lii ñu def tey.